asalaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora te dañuy ñëwaatoon fii seen beneen émission émission Palpe Palpe nag boo ko déggee sa xel day am si lu dem lu bare bëri émission bi nag boo ko déggee émission bu sëmbax la émission la boo xamante ne maanaam fàttaliku temps booy dindi stress ambiance daal soxna si nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. Euh, ba nga nekkee xale daan nga daan waaw <laughs> ah, damay foo dama doon foo moom. ban foo. lépp def nañ ko xeex nañ ànd nañ groupe di tooñ lu nekk def nañ ko dóor nañ ma sa dóor yu metti sax waaw. Ah. ban dóor lañ ma la ma sa dóor mu metti la. ii non dóor nañ ma dóor mu metti ba jàmm ma si. Hmm, loolu fan la woon. yàggul yàgg na ginnaaw raay fii. ginnaaw raay fii. Mhm. yow am nga far. waaw waaw. Hmm. waaw. yéen a ngi maanaam su lancé daal. <laughs> Hmm? waaw. Ah, waaw kon neex na. maa ngi si jàmm baax. non xool damaa bëgg nga ubbi sa kanam gii nii wax ak man dégg nga ah loolu la lan nga lan nga fàttali sa temps booy lu lu lu la gën a neex sa temps booy nga xamante ne heure boo ko xalaatee da ngay dajee da ngay def. ah di xeex ak ay taalibe. ay taalibe léegi ma ay xeer ay loolu gannaaw na la. loolu def daal bi. non dara damaa tëdd si douche bi rek. waaw waaw. Ah, ah. <laughs> non mais waxuma leen non lan nga leen def yow lan lan nga jot ak ñoom ba tax ñu lay wër. non seen kër bi laa sàcc seen kër nga sàcc nëbbu. yow am nga fit de. dangaa sumba. yow da nga def yow. maa ngi si sa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm mais li nga yor yaa ko moom wala danga koo àbb. non man maa ko moom. yaa ko moom. Mhm. ah bëggoon naa xam sa temps booy de. sama temps booy moom yaa ma gën a xam. <laughs> Euh, ñun daal moom ñooy lool def nañ lu nekk waa soboon naa nag torop moom damay fekk dama daan dem benn kër gu am sone ma sone daal daw wala des fois buñ gisee kenn daal di ko daw yaa am a xam daal def nañ lu nekk daal. mais daan nga daw jàng. daan naa daw jàng waa. Mhm. daan na la tànn par quatre seen classe. daan nañ ma tànn par quatre moom waaw. da nga may niróol ni laar de. bu mag sax. Ah. du ma bu ñaata yoon nga jël ndaare. <laughs> ah ba ma dalee jàng ba tey moom mosuma jël ndaare moom. mosoo jël ndaare. non non foo bàyyee. quatrième laa bàyyee. quatrième nga bàyyee. Ah. Ah. Mhm. am nga far. am naa far moom waaw. ah mhm. mais yaa ngi koy seeti. non moo may seet si. mais yéen a ngi féex. waaw ñu ngi féex waaw. bu baax. bu baax a baax kontaan naa si yow mii tamit. maa la gën a kontaan xool xam ne yaa ngi mel ak lu ba yat <laughs> yow mii. a poser am nga am nga far waxal dë waxal dëgg nag. am naa yaa ngi koy nàmpal. déedéet. waaw ah, lu tax nàmp rek. ñu ngi sinap. Ah, non moom laa est-ce que mi ngi sinap. te est-ce que xam nga li sinap. <laughs> déedéet sinap bu ñu def. yow xamoo li sinap. yow maa ngi dara. yow bàyyi kii moom bàyyi jàll ko. Ah. <laughs> nañ jàll ko. waaw léegi léegi ah yow est-ce que mën ngaa doxati mbooloo. <laughs> ah daal dañ koy yor waxal rek. non non déedéet. mosulaa la <laughs> loolu la <laughs> mosuma. Eh eh, eh eh kaay kaay ma laal la yow eh kaay kaay kaay. eh eh ma kaay fii kaay ma laaj non ñëw dugg la dama lay posé benn question bu ndaw laa lay posé kaay dama lay posé benn question rek. waaw salaamaaleykum moom. na nga def. maa ngi fi. yaa sa ñaawaay bi. man kay damaa ñaaw ñëpp xam hmm? nañu lu tax loolu. Hmm? ma ci xam. <laughs> allo kaay wuy ma. kaay fii. waaw la. fii laa wax wuy ma. daf ngaa xeex. man waaw. Ah. waaw ñaata yoon. ñeenti laa mos a noox. ñaata yoon. yoon. ñaari yoon. Hmm. ban xeex nga mos a xeex xeex bi gën a metti sa xeex wuy ma kaay. wuy ma kaay. boo taxaw dinaa la laaj loo xam ne di nga loolu dafa neex da sama ma daa dem si imam bi rek xam nga imam bi daa téye booy xam nga di leen bëgg a sonal booy dee bok dee leen bokk bokk dafa baax dee leen bokk ay jullit bu mu bokk jullit bu mu dëkkee dañuy bokk dee leen bokk xam nga léegi benn booy ciblé imam quoi ñoom ñu leen bëgg a rey bokk bi booy bi ne ko mais imam mu ne ko mu ne ko yow wi fit mu ne ko jox ma code mu ne ko code xam nga imaam hésité xam bu ko waxee a xam nga li nga wax nii sama xel dafa am ci lu mu dem maanaam mel na ni imaam ba imaam ba woon suñu kër maanaam chaque fajar day njëkkante maam dem jàkka ja mm. essange dégg ci biir kër gi dafa am beneen femme célibataire bu luye ci biir kër gi ak ay célibataire yu góor ah. maanaam femme bi chaque jour day iri gars yi mm-hmm. mais bu iree gars yi dangay ngay dégg ay yuuxu yuuxu yooyu dégg maam day buddi cook esant dégg imaam bi nag loolu moo ko jaaxal léegi nag mu ne day découvrir loolu benn jour mu dem découvrir loolu femme bi tee ko pamti pamtee ko ba mu sonn esant dégg mu xëy suba di julli ji dégg ay yuuxu mu ne déggal doom raam ji rek mu ngay buddee si ne <laughs> uy ma léebal ma non daal di ñu rek yow mën ngaa leen. kaay ma kaay. loolu si dara kaay. Ah. Ah, baa sey ngay def na man xam naa mën waaw maa ngi fi sant. yaa si jàmm sant yàlla bu baax. sa waay yow ñaaw nga de. ah gis nga de moo tax ma ne la bu ma ñëw quoi sa instant mooy loolu damay doo a wàcc nii. ah mais yow yaa ngi man ma am soxna. ah daa am soxna laaj ma am soxna ah waaw. mais di nga bëgg nga ñaareel. non sama soxna bu déggee waxul ñaareel daf may rey. yow tàppeet nga de. maay. ah maa xam li tax ma ragal. ah sa soxna fi mu lay képp dafa neex. biir nekk bi gars mooy loolu. ah waaw des fois mu cuuraay la neex de. cuuraay bi mooy cuuraay mosuma xeeñ. ah waaw muy demee une heure du matin bi. une heure du matin bi boobu day tàng jër. day tàng jër ah ah day ma yow. di ma léebal de. waaye léebal ma waay. wuyu ma nii léebal la lépp mënuma lépp. wuyu ma léebal. mënuma léebal rek. léebal maa ngi. mënuma. sans yow ñaata far nga. benn far c'est sûr. c'est sûr. ah. dëgg ma la de. yéen yéen infidèle mais est-ce que est-ce que mës mës mës ngaa dajale ñaari góor yàlla ñu ngi xeex ngir yow mës na la mës na laa dajale. Hmm, xanaa xuloo doom waaye xeex moo am. xuloo mais xuloo bi ni mu demee woon. waaw ah, waaw léegi léegi nu mu demee yow yaa leen ëffal kon yow yow seetaan nañu kon. ëffal ma dama doon leer doon. ah léegi nu mu demee film bi laa bëgg ma nu mu demee. non non ni ñu koy expliqué de moom da léppay leer amul amul kii nii. ku lay dóor. non mais am na am lu xew am na lu ngeen jotee am na ñoom la moo leen boole ñoom ñaar léegi la moo nekkoon seen problème jigéen moom fu mu nekk jigéen jigéen moom dafa trop. Ah. mais xam naa ko de. dëgg la ah. ah, dafa sa bopp mais yow yow yow est-ce que yow ah mës ngaa mës ngaa xeex xeex ndax góor.

yow yaa ngi yow mos ngaa jëw jëw waaw duma ko def lu ma nar a jëw de woo ko mu ñëw taxaw ma wax ko li ma koy wax yow am nga fit de waaw yow man ma ah. dégg ne jëw rek ngay def man waaw meluma noonu hmm. waaw ah. yow doo jëw hmm. lu <laughs> tax loolu oh, non dama xam ne baaxul rek mais bi nga nekkee xale daan nga jooy naan yaay may ma ñaar dërëm waaw ba léegi ni sa damay jooy ñaan tàngal nga nekkee xale daan nga sawlal saw kay ku nekk xale jaar nga si. Hmm. waaw daan nga lekk suuf. suuf mbëkk naa ko ba taay yàggul dara ma bàyyi ko. Hmm. Mhm. yow mii sa mbëx nga de. mbëx kay. Hmm? waaw. bu la xool nii nga mel ni lu law ba defar nii. yii ba mu bëri doole sax. ah mhm. mais ba nga nekkee xale daan nga doxal ci mbooloo. non non. daawoo ko def <laughs> non non <laughs> ah, kon baax na.